Djily Mbaye mbokki jàmmalaay mbokki Yoff seen doom seen xarit seen dëkkandoo seen rakk seen mag seen lépp Mamadou Gueye kontaan na ci yéen kontaan naa ci waa Yoff ni ma jàppee kontaan naa samay mbokk ni ma téye kontaan naa ci askan Yoff yëpp ak lébu gi yëpp coalition Sénégal 2035 kontaan naa si la coalition Sénégal 2035 mbokk yi ku nekk am na loo moom loo moomal sa bopp ak loo bokk ak penc mi ay at at mu ngi doon wax ci gestion wu commune bi mu ngi doon wax suñu yéene ci dëkk bi tey suñu boroom. def na mu concrétiser wu ma ànd seeg samay nawle samay nawle yu baax samay nawle yu am yitte samay nawle yu gëm yoo ma ci tàmbalee soxna ay Ndiaye di ko gërëm di ko sant di ko gërëm di ko sant ci taxawaay gi mu am ci ànd bi ci ni muy rafetalee diggante bi ci ni muy fexee di élargir la base pour que ñu mën a am des résultats très di gërëm Hadj Mansour sëñ Mansour Dia mi nga xam ne sama xarit la sama frère la nekk un jeune très bëgg gox bi amoon projet yu wóor ñëw ñu àndandoo pour sauver la commune de Yoff di gërëm di nuyu sama xarit Mamadou Lamine Cissé bi nga xam ne Pastef la nekkoon nekk un jeune très dynamique bi nga xam ne nii développement Yoff rek moo ko ñor di gërëm sama waa sama di gërëm samay am di jàmm di gërëm samay dëkkandoo yëpp yëpp yëpp yëpp gërëm le président Abdou Diagne Diecko bi nga xam ne nii mu ngi nekk au du ministre chef de cabinet du président monsieur Mame Mbaye Niang di leen ñaan ngeen tàccal ma ko ngeen tàccul le ministre Mame Mbaye Niang ndax jeunesse bi moom jéemul ndax kenn yëgul boppam xam na lan mooy gouvernance des services sociaux de xam na lan mooy fraternité xam na lan mooy liggéey dans la loyauté xam na nu ñuy liggéeyee ak nu dox di leen xamal samay mbokk waa Ouest Foire Nord Foire Djily Mbaye ak l'ensemble de la commune de Yoff nii dafa jot changement bi am changement boobu noonu ñun donc mun cee jóg dem ci waaye tey lii am nii dafa am lu muy fësal ni waa Yoff am na lu ñu nam ci ñaari weer yi yu jëm xamal ni benn waxtu la ci benn minute ko ci benn bañ gàcce juróomi at da ngay toogaat di ko xaar di leen wax ni ki ngeen di dénk seen gox war ngeen ko seet seetlu ko ki ngeen dénk seen gox war ngeen ko natt ci ay jikko ci ay war ngeen ko natt ci pas-pasam ak bëgg réew ak am diineem loolu buñ ko jiitalee ci vote yaakaar naa ne duñu juum yaakaar naa ne duñu nax suñu bopp du ko ministre bi waxee di wax ni bu dee changement rek nañ gëm bu dee defaru réew mi rek nañ gëm bu dee ndaw yi ni bëgg a fësal ni ñëpp jàppale la coalition Sénégal 2035 am na ay jeunes dynamique ci nekk ku mel ni Libasse Kane bu Cambérène maa ngi koy nuyu passage maa ngi nuyu Bokar bi nga xam ne moom moo ñu représenté au niveau de Fass Gueule Tapée Colobane may gërëm jigéenu Mame Mbaye Niang yëpp ku mel ni Awa Niang mel ni Dina su ma waxee ñooñu rek ña ci des naa jël nuyoo bi yëpp seen loxo ñoo samay mbokk kontaan naa ci taxawaay bi kontaan naa ci yéen ngeen am ci ñu soppi lépp di gërëm l'ensemble de la coalition Sénégal 2035 de Yoff di ci nuyu Chérif. di ji nuyu Habib Gueye di ci nuyu baax bi nga xam ne tey dafa def une forte mobilisation waaye doo fàtte sama maman Koumba Thioune sama maman Fat Diop ak sama maman Aw Koné yéen wax ngeen tàggu ma leen bu baax a baax a baax pour bañ a guddal daal mbir mi lenn la na ñëpp jàppale seen doom na ñëpp jàppale projet de société bi nga xam ne nii jàpp nañ ne te bu ñu jàppalee lépp lu ñu bëgg réaliser si dëkk bi dinañ ko am te duñu xas kenn. du ñu kenn du ñu xeex kenn lépp ce sont des débats d'idées may ñaanal réew mi jàmm ñaanal Yoff jàmm ñaanal jàmm di leen gërëm di leen sant jërëjëf monsieur le ministre maa ngi